باب تكبير أيام من وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد ويكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي قسطاطه وفي ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعا وكان الميمونة تكبر يوم النهر وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي تشريق مع الرجال في المسجد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ونحن غادون من منن إلى عرفات عن التلبية kayfa kuntum tasna'una ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala kaana yulabbi al-mulabbi laa yunkaru alayhi wa yukabbiru al-mukabbiru falaa yunkaru alayhi haddathana Muhammad kabbar ibnu Umar daana kabbar ci bergeneem ba ku jaay yëpp di ko dégg ba jàkka ja sax dégg ko di kabar ci kabaram ngir fàttali nit ñi rek ne bés yi kabar la te yàlla santaane na ko suñ saa nañ kabar bisi <coughs> labbayka la itam boole ci laaj nañ saaba si ne ko naka ngeen daa def ak labbayka ak kabar yi mu ko kum neex nga labbayka kenn du la weddi kum neex kabar kenn du la weddi ñii dañuy kabar ñii di labbayka waaye yëpp daal loo ci def rek baax na saggan ci bés boobu ci tudd yàlla daal mooy li bañ waaye tudd boobu tuddee rek حدثنا محمد قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن عبس قال حدثنا أبي انا عاصم انا حفصة عن أم عطية قالت كنا نمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته sab eet ci jamono yonent dañ daa génne ñëpp woo leen ñu dem ci julleekaay ba adama te jigéen ju ndaw junne ci sëyam danañ ko sant mu dem jigéen ju ndaw jaamam mbërëg danañ ko sant mu dem waaye dañuy julli dañuy beru lu di kabar ci seen kabar rek bu ñu kabare ñu kabar ñoom jigéen ñi ndànk ba bañuy matal waaye xiw ya nekk foofa daal yonent na war da faat kenn boo nag ñëpp liñ daa wax nañ dem باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز كانت وكانت تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنار ثم يصلي باب حمل الأمزة أو الحربة بين يدي إمام يوم العيد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعمزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها باب بندق لي ci gannaaw bat yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon aw jàkk buy dem ci julleekaay wa ñu ngi ko teye ci kanamam bu yàggee samp ko ci kanamam mu julli jublu ca باب خروج النساء والحيض إلى المصلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد عن أيوب عن محمد عن أم قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وزوات الخدور وعن أيوب عن, عن بن بالنحو وزاد في حديث أفصة قال أو قالت العواتق وزوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى baaba rooja sugaani la mais fekkee na jabaram itam ci juróom benn xare <clears throat> mu ne nekkaa ci xare bu góor ñuy xeex ñu ngay faj ñu jam waaw di leen di garab ku ci daal ñu taxaw ko yóbbu ko ci barab <clears throat> mu yóbbu yóbbu ko ca dal mu ne ba mooñee ko mu ñëw laaj <coughs> wax ko jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu woo Atiya ne ko addis yi ñu solo ci yow ak sa waa kër yaa ko wax mu ne waaw géej naa ci sama baay te bu tuddaa yonent rek fokk mu wax ne géej ci sama baay <coughs> باب اعتزال الحوض المصلى قال حدثنا مامر بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قال ام عطير امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وزوات الخدور قال ابن عون او العواتق زوات الخدور فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم mu àttee moom woon nett ni mu ne yonent daana digle bu julli korite jotee jigéen ñi borom jëkkër yi ak ñoom mbërëg ñi ak jànq ji yëpp ñu dem ci jullekaay wàlloo ki ko laaj ne ko ku am mbërëg sax mu ne ko ku am sax bu ko am mbërëg dana teew Arafaat mu ne ko waaw mu ne ko na teew te deru julli ga daal bañ julli waaye mu fekkee fi ba nga xam ne mooy ñëw ak ca julleekaay ba jullit korite daal jullit julli gi daal bu génn mag ak ndaw góor ak jigéen xataa jigéen ji julliwut sax war naa dem teew waaye jigéen ñi beru nag góor yi ndax loola fi bu bëri moo fay ñëw te war nañ ca teewee seen wàll صلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني كثير من فقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يزبو بالمصلى باب buntab laj ci julleekaay ba àll ba daana yóbbu xorom ca julleekaay ba laje ko foofa ci kanam ñëpp ndax kenn حدثنا أبو الأحوص قال عبد المنصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النار بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك الشاة اللحم فقال أبو بردة فقال أبو بردة بن نيار فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسدت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم قال فإن عندي أنا جزاتني هي خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من زبا قبل صلاته أن يعيد أن يعيد زباه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني زبات قبل الصلاة وعندي أناق لي أحب إلي من شاة لحم فرخص له زكريا قال حدثنا مسلم قال حدثنا الشعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهار ثم خطب ثم زبا وقال من زبا قبل أن يصلي فليزبا أخرى مكانها ومن لم يزبا فليزبا بسم الله صلى الله عليه وسلم قدنا في قصر تبسكي تكرار البخاري ci bunt yi ci lay génnee fiq ba nga xam ne moo tax mu indi hadis yi hadis yi ñoo wéyoon na wéyoon na wéyoon na ci waaye indi na ko ngir élimaan buy xutba ñu waxee ko mu tontu indi na ko itam pour wane ne ku rendi julli ga amuloo tabaski am na ko it pour wane ne xam naa ko mbute mbote si mu waxoon ne moo gën bu mat mën na koo rey ci ko yonent ne ko nangu ko ko ko foofu solo ci moom yonent daf ko jagle rek waaye bu matul sax nii rek fay béy du du tabaski باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تيملة يحيى بن واضح عن فلان بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فلان عن أبي هريرة وحديث جابر صح. صلى الله عليه وسلم bu bisu heure jotee buy dem dana di yoon buy de buy ñibbisi ñibbisee beneen yoon def ñaari yoon yi quotidien daal nañ ko nag dinañ ndax ñaari yoon yëpp seede la ñu ne déedéet ndax nga romb ci miski yi nekk ci ñaari yoon yëpp mën leen a sarax ñu ne déedéet wane doole lislaam lañ ci jublu mbooloo ñu awee ci yoon dem aw ci yeneen yoon dem loolu gën kan, a rab ci bëti noonu باب إذا فات العائد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عائدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولى ابن أبي غنية بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل, أهل المصر وتكبيرهم وقال أكرمة أهل السواد يجتمعون في العادي يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العهد صلى ركعتين قال حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تدفقان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منن وقال عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن buntab bu nga rawee fii boo uutee julleekaay ba julli nga limaande julleekaay islam julli gi sunna la ci ñëpp am na ci saaba yi ñoo xam ne dañ daa boole ñu dee bu leen xeet ji ñu boole seen njaboot ci seen néeg ci benn ponk ci seen néeg ñu julli ñaar rek ba julli bi bu ko teewut itam bul ko neenal na julli ñaar rek ci sa néeg باب الصلاة قبل العهد وبعدها وقال أبو المعلى سمعت سهران بن عباس كره الصلاة قبل العهد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال julli julli nag moom rek lañuy ñuy julli duñu naafila ci la ko jëkk duñu naafila ci gannaawam ne yonent génn na ci bésa weet ba mu ñëwee ci jullekaay ba mu julli ñaar rakkayaat yi julliwut bu ko jiitu julliwut bu ko mujj الشباب الصغير والكبير من المسلمين juróom koor yonent farataal na ko ci bésab korite kenn ku nekk saa saa mooy ñenenti muut ci muutam yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ku nekk nag la ak gor ak jaam waaye nit mooy génneel boppam génneel képp koo xam ne moo ko war a dundal ci yoon ak jege ñaare waral ko walla ak dencante wala ak moomeel niki góor ngi koy génneel boppam ak doomam ju ndaw ju géwén ak jabaram ak koo xam ne moo ko élif muy góor mu jigéen ñooñu ñëpp yow yaa ngi war a nattal mu dem koor yow mi nga xam ne yaay waram kër gi fi ñu koy nattal fi ñu koy génne nag ci xeeti moistar yi ñuy dunde <coughs> chaer wala sult wala ceeb wala dugub yeer wala dugub ceegu <coughs> wala tàndarma buñ <coughs> ko ci natt rek doy na باب صدقة الفطر الطعام والشعائر قال حدثنا قتادة يورم كور ci ñam rek chair wala xamoo mooy fariñ bi de wala dugub wala ceeb wala sax fromage boo ko nattee ci <clears throat> ku nekk nag yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon saa nag mooy ñu doon ci muut jamono yonent yëpp loolu la ñuy natt mu dem ko moo seetlu naa moo arrêté nag tamit ma ji ñuy wax samra mu ne benn ca mat na ñaari muut ba ku ca ñaari muut rek am nga saa um, waxtu génnee mu dem koor nag mooy gannaaw bu ñu jullee suba ci bésab korite balaa ñoo dem ca julleekaay ba àll <coughs> nañ nag bu fekkee ñu ngi koy sarax teewuñ ci barab bi nga jiital ko ñaari fan maanaam balaa ñoo wari nga génne sa mudam koor yónnee ko ñu nga xam ne ñoo ca ñoo ca xëy su fekkee barab bu nga nekk amut ñoo xam ne xëy moom daal dañ ko jox koo xam ne xëy na bi bi ci gëf keroog ba bi ci gëf kër te daal koo xam ne aajo na jëm jëm moom lañ koy jox bi dee duur miskin bi dee duur miskin sax. sa du na sa sa boo xam ne. bàmmeel dana wax ne xelante fekk man maa tëdd ci bàmmeel bii ndax yàqute yu bëri nga xam ne mooy xew si ci àddina jamono dana soppeeku ba at mi ñëw ci gannaaw at mu dikk rek gën balaa tukki waaye dana génn ci xaxtaan di màng nit ñi ak i ak xetal àdduna du tukki dana safara dana génn ci aadan ak ci hijaas di safara wuñ ko taaroo dana leeralal nit ñi baqi gëlëm ya nekk ca Busra lépp tukkital ja tukkital àdduna bara safara wi nga xam ne tey dafay mànga nit ñi tukki jóge penku jëm xarfu jóge jëm penku yëpp safara moo leen di yóbbu ñu yendoo ko fanaan électricité bi nga xam ne mooy doxal avion bi ci aadama la jëkk a feeñ njàllam foofu la jëkk feeñ safara màng nit ñi tukki ñu yendoo ñoom di fanaan ak ñoom ñun itam mën nañu ko taawalee avion yi nga xam ne moo xew léegi te ci réew ñu tukki safara way tàkk nag ngay seen doxi gëlëm nga nekk ca arène loolu it mën nañ koo dégg léegi jiital télévision yi nga xam ne ngay xool télévision gis la nga xam ne mooy xew ci biti boo nekkee makka di seet télévision mën ngaa jàngal du fra yooyu yëpp am na léegi dara des lu ngay àdduna tukki rek di furaat nga ne bëbb génne aw wurus rëja beneen mu ne dana génne doju wurus ku ko fekke ci yéen mu jël dara na ko bañ a lekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sala xeral mi ngeen am jamono dana ñëw alal ji dafay bëri ba ko génnee sadax doo gis kenn ku ko nangu koo dem rek mu ne man man boole naa loolu am na ci jamono Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne dafa maandu woon ba nga xam ne adduna nga bëbbal xigu yëpp ci jamonoom dafa génnee sadax doo gis kenn ku ko nangu <coughs> waaye rek mu ne balaa àdduna tukki na ngeen saraxe balaa àdduna tukki da ngeen gis mooy boo xamee ne limaan bi maanaam ji delsi na ba tëral maanaam ci suuf xaaral ji dafay bëri ba nga xam ne boo génnee sarax bëgg koo joxe kenn du ko jël xaaral ji ci àdduna fi mu ne ëpp na wërsëgu nit nit ñi tooñ gi rek ba tere bëgg ci nit ñi waaye ñu di ko wax di ko def ay bomba ki ay avion yu naar di ci kaw ñii di dee xiif ma jàng googu mu am ci firnde alal ji gis bu mu dañee rek ku nekk doyal ba nga xam ne koo jox sa wax mu ne la waroon mu ne sa xew naa tukki xam-xam dana néew réer bëri wóolu moom am na ay rëng-rëng yi yu du jeex ci àddina si mu di ko dégg loolu itam am na balaa jeex itam rayante yu bëri ñu mun ci xeex di rayante loolu itam am na <clears throat> balaa àdduna tukki itam mu ne ñaari kuréel dinañ xeex ñoo xam ne la ñu woote lenn la mooy fitna ci doxoon diggante saaba yi fitna Muawiya ak Seydina Ali àdduna du tukki lu may jant bi fenk bàyyi ko ci sow ba kooku nag mooy mujj ak mandarga yi soo xamee ne fenk na jant bi fenk na ci sow ku gëmutoo it keroog da nga daal di gëm mboolem ñëpp gëmandoo fekk nag muy waxtu woo xam ne ku gëm it duñ nangu sa gëm mooy bés ba nga xam ne gëm dootu jëriñ borom lu mooy ko gëmoon lu jiitu te def lu baax lu jiitu kooku la gëmoon du jëriñ sallallahu alayhi wa sallam mu ne balaa àdduna tukki dajjal dana génn na ko la dajaal lu bari loo xam ne kenn laa ko ko mu ne ma loo ciy ragal mu ne ko damaa dégg ne dafay ànd ak doju mburu ak ndox ak safara ku murtat loo nga bañ mu dugal la ca safaraam sa képp koo xam nag ne nangu gëm nga la muy woote mu jox la mburu jox la ndox te fekk boobu nit ñaa ngi ci xiif mu ne ko bul ko ragal manam jotewu la mom dara du feñ ci sa jamono no dana ñew wante du dugg medina makka ak medina yalla dana dana len haat ci dajjal mu ne medina kérok bes ba dajjal di ñew ko jup ko bu juróom ñaari buntam yépp dina ñaari malakan fa taxaw di nekk dajjal bu bëggee dugg medina ñu xalaat ko su ko defee medina

yonent bu yàlla mas a yónni ragal loo na ko aw nitam ndax dafay woote ak yàlla te ku ko gëm rek di xéefar waaye man maa ngi leen koy ragal loo waaye dinaa leen ci wax loo xam nag ne benn yonent mosu ko wax da xam ne moom patt la benn bët la bëtab càmmooñ bëtab ndeyjooram dafa patt te xam ngeen ne yàlla du patt soo xamee ne gis ngeen ko bëtam bu yàqu boobu ñu ngi ci bind kaafirun kaaf ak faa ak raa ku ko gis tey jullit danga ko mën a jàng xam ne ci kaafir la doo ko topp <clears throat> ñi nga xam ne ñu gëmuñ yàlla nag ñu ci mbind mi dara ñu gëm nga xam ne moom la dajaal di woote te dafay ànd ak safara ànd ak aljanna aljanna moom bu ñëwee ne la boo ma gëmee ma dekkal sa ndey sa baay nga ne ko gëm naa la mu daal di wax sa turu ndey sa turu baay ñaar daal di génn ci seen melo takk seytaane rek la su ko defee nga gëm ko boo ko gëmee rek mu dugal la jaar janaan bi waaye jaar janaan xam ne ne safara la boo ko gëmul nag mu sànni la ca safaraam sa waaye comme sànni ca safaraam sa itam da nga xam ne ci àjjana nga dugg. mu naa. نہیں سنگو میں سب نے مارے میں جس کے انے mel ni enab bu yàqu ma ne kii kan ñu ne dajjaal mooy ci jamono Isaa lay feeñ Isaa koy rey su ko defee ci waayam aa ولا تشاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان الناس ان اخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف على العصر الاواخر من رمضان حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده حدثنا إسماعيل الاعتكاف جه عند ابن بكر جكار فكيف يجي ويركض l'étikaaf ngir bëgg a dajeeg laylatul qadr bi nga xam ne fukki fan yu mujj nekk ci bés yu tool yi. mu <coughs> génnee àddina itam jëf jooju jabaram yi ji lañ jàpp dañ ko daal étikaaf at mu nekk mboolem barab saawee nag toppuñ ko dana tax dafay gi ci nekk tax ñu woyofal ko daal. defuñ ko muy xeet wi nag nga xam ne nañ ko defee ji def حدثنا إسرائيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد سلمة بن عبد الرحمن عن عبد أبي بن الخضر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العصر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان الليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من سبيتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العصر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أمسي yonent bi sallallahu alayhi wa fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci diggu weer waaye guddi gi may doon sakku war nañ ma ko ci fukki yu mujj yi la nekk da ngeen ko <clears throat> ci fukki yu yi ci bés yu tool yi gis naa ne guddi bu ma setee maa ngi fi jóot ci <clears throat> ban waan ak ndox ku doon leetikaaf ànd ak man daal saxal ci sa leetikaaf man génnuma te booba mooy suba si ñu teg benn te booba mooy suba si ñu teg benn wala ñu teg benn la ko wax ci suba si sallam ba mu jullee suba ba sëlmal ban baa ngi taqarib ci kanamam ak ba kanam la mu géwantoon moo xam ne guddi ba guddi bi teg benn mooy guddi leetul xadar ca weeru koor mooy sàkku leen ko ci fukki yu mujj yi ci guddi yu tóor yi guddi gi teg benn guddi gi passé bi guddi teg ñett muy ajuma ji ñëw guddi ñu teg juróom bëcc ñu teg juróom ñaar boo xamee bés bu bés bu tólle daal ba nekk ci fukki yu mujj man sàkku leen ko ci mu wax ci ne nañ faaw guddi ajuma lay dajee boo nag boo dajee guddi ajuma bu bu tóol ci fukki yu mujj yi daal nga ko باب الحائض ترجل المعتكفة حدثنا معمر بن المثنى قال حدثنا يحيى بن قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغي الي راسه وام جابر في المسجد فارجله وانا حائض. نعم، كل اعتكاف جبارم جنبرك جمبرك ko البطن صلى الله عليه وسلم.

باب لا يدخل البيت إلا لحاجة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا صلى الله عليه وسلم dana taral boppam mbayaane tata ndayaata mbayaane tata mu ngi ci néegam yonent ne ci jàkka ji ñoo dëkk néegi ndayaane tata moo jàkka ji dëkkoon mooy foofu ñu denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaba xas li moo takki ko ma di ko ko jàttal te moom mi ngi leeti gaal waaye dugg si ci biir kër gi nag mu ko dama nga xam ne dafa am aajatul insan وهذا غير المعتكفين حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاقتله وانا حائض. yonent daal kooram daaw tere muy laalante ak ndey Aïcha daanaka mooy ko tànnal boppam mu di ko jaatal sax fekk moom mi ngi lee takaab fekk ay sa tam mi ngi mbërë boo warul باب الاعتكاف ليلا حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهليه انا اعتكف ليله في المسجد الحرام qaala awfi bi nazrika i'tikaaf guddi amul ràpp loolu ñu rek rek Omar nu ne dama ni faroon i'tikaaf ba ma nekkee xeefar genn guddi gi jàkk ja ñu ko laajee yoonam su ne ko man de ni faroon naa i'tikaaf ba ma tu ba ma tuubagut léegi lu ca war yoonam su ne ko matalal sa mën na mën naa lay tikaaf genn guddi ki nga xam ne moom la ñu feroon حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له حذاء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذن فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خبان فأذن الله فضرب الخدان فلما رأت زينب ابنة جحش ضرب الخدان آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأحبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن آه، البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال yéen a daal itikaaf samp bergeneem bu nekk ci <coughs> sampal naa yéen a sata bergene bu nekk ci wetu bergeneem bi mu ngi itikaaf bu jullee suba daana dugg ci bergene bu waaye sata nekk <coughs> jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggu Ndeye Aina ne ko ñu mën nañoo ñu bergane fii dend ak yonent bi ki ko ki ko tàggu mu ne ko waaw mu samp berganeem sama bintu jaasi bi ko defal mujj nag moom daal di ñëw حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خب إذا أخبية خباء عائشة وخباء عفة وخباء زينب فقال أهل بر تقولون بإن ثم انصرف فلم يعتكف اعتكف عصر من شوال باب المسجد حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين رضي الله عنهما ان صفيه الزوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في في المسجد في العصر الاواخر من رمضان فتحدث عنه ساعه ثم قام تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلب حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمه مر الرجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي الصفية بنت حبي فقال بنت حيين فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ دم وإني خشيت أن يقدر في قلوبكما شيئا

gunge ko ba ci buntu jàkka ja ci buntu ak néeg umu salamata mu tase ak ñaari gaay yi bokk ci lansaar ñu nuyu ko ñoom ñu leen taxaw leen nag ndax si ma ànd ak sa fiyatu la kat sama jabar ñu ne subhanallah yeneen loolu tax nga di ko wax mooy leen saytaane di dara di dara ci yaramu nit la saytaane di dara ci nit mën na sànni ci seen xol leneen loo xam ne ഐവൻ പൂനാഥപ്പും sallam takkal na leen takkal na boppam tuuma te ñoom dara nekk ci ci seen xol nit moom bu ko tuumaa rek génn ci diine ji moo tax ba sonn ci leen bi dana ne ki ma ànd ak sama jabar la du keneen sallallahu alayhi wa sallam باب العتكة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم السبعة وعشرين حدثنا عبد الله بن منير سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يا بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا سبعه عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سداد بأس فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسها في العصر الأواخر في بدر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته باب اعتكاف المستحاضة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرايل عن خالد عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا التخت تحتها وهي تصلي باب زيارة المرأة زوجها فيه قال حدثنا سعد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن السبيت الزوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبره حدثه عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرونا فقال لسفية بنت حو بنت حوين لا تهج لي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعجازا وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيين فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقى في أنفسكما شيئا باب هل يكره المعتكف عن نفسه حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنه انواع ان السفيه اخبرته وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا السبيان قال سمعت الزهري يخبر عن عن علي بن حسين ان السفيه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معه فعطره رجل من الأنصار فلما عطره دعا فقال تعالى صفية وربما قال السجان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت للسبيان أتت ليلا قال وهل هو إلا ليلا باب باب من خرج من اعتكاف عن الصفر حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا السبيان عن ابن جريج عن سليمان الاحولي خالد بن ابي النجيه عن عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال قال سفيان وحدثنا معمر بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال واظن ان ابن اللبيد حدثنا عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهر الاوسط فلما كان سبعة سنين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى متكبه قال وهاجت السماء فمطرنا وهو الذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء وطين باب الاعتكاف في شوال قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوانة عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذن عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه فضربت فيه قبة فسمى بها حتى فضرب القبة وسمى زينب بها فضرب القبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا وأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا أبر أن فلا أبر أن فلا أرى ورمضان أعطاك في آخر العصر في آخر العصر من شوال باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نظرك فأعتكف ليلة باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نظر في الجارية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بنظرك باب الاعتكاف في العصر الأوسط من رمضان حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حتى قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبل فيه اعتكف عشرين يوما باب من أراد أن يعتكف أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يا بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العصر الأواخر من رمضان فتأذن عائشة فأذن لها وسأل العصر عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأى ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله التعازي تجمل بها للعهد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لباس من لا خلاق له دعاء وتصيب بها حاجتك باب الحراب والدرك كنت تعرض في ñusu naab la sidna omar ibn xatab dafa jotoon bi moom mu fab benn ñëwante ko yonente sallallahu alayhi wa sallam <coughs> da ko jëndal <coughs> jëndal manto sarira bi ndax nga di ko sol ci bés weer yi ak bu siyaarakat yi ñëw di siyaara yonente ne ko lii daal ko amul benn cëb ca àllaxira moo laaj yonent ne ko dama ko bëgg a seetaani wala moom moo ma laaj ndax bëgg ngaa seetaan am déet lu ci mën a am ma ne ko waaw yonent ñëw taxaw sama diggante ak ñoom moom wan leen gannaaw ma ne ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama laxam ci laxam moom mu wan leen gannaaw man may seetaan حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الزبيد قال سمعت الشعب عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فمن حرف من فعل فقد أصاب سنتنا حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سعد يتلون منه يوم صلى الله عليه وسلم خطبنا جبس بهذه هذه تبسكلة اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا حسن بن مسلم عن طاووس بن عثمان بن عباس قال شهدت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله الناس عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العهدين قبل الخطبه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها سمعت النساء ومعه بلال فأمرهن بصدقته فجعلن فجعلن يلقين تلقي المرأة خرسها خرسها وسخابها حدثنا آدم julli yaat daal moo jiitu xutba marwaana ko safaan moo ko jëkk a safaan ci nguuru Sidina Muawiya Sidina Ali doon na yedd Usmaan ne ko daal marwaan yi nga jiital mu yàq rek jaar dana ñëw waaye bu ñëwee dëkk bu ne dana ca dugg lu Madina yàlla xaraamal na ko mu dugg Madina waaye dana ñëw ba ca tànn yi nga xam ne ñoo war Madina suufi ci xorom yi réew bu ne bu boobaay benn waaye boo xam ne moo gën a xiw wala ci ñu gën a xiw ci ñooñ jamonoom la bokk mooy génn Madina ñëw seet naa ne yaay dajjal mi nga xam ne yonent waxoon nañu mbiram li nit ñi waaw su ma reyee kii dekkal ko li ngeen di wax kon da ngeen gëm sama mbir wala déet ñu ne ko boo ko defee ke ñu gëm la mu rey ko dekkal ko waaye jane ko maa ngi ne maa ngi dee saba xam nag tigi tigi tigi tigi tigi léegi nag wóor na ma ne yaay dajjal mu dellu fabaat gannaay bu ko rey nag boobu yoon nag malaaka yi dox diggante moom mënalu ko dara mu bàyyi ko man nga dajaal di wëññeekoo du dugg Madina dugg Madina yàlla dina xewal ay malaayika ñu wër ko ba lu yàgg-yàgg duñ mën a dugg ci dëkk ba mu ne naka noonu mbas itam incha allah du dugg Madina yonentu Seynab bint Jahsin jabar yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dugg na bés ci kër gi naa laa ilaha illallah di wàcc tey ci fitna laa ilaha illallah ne hubbi nañ ca te tey yaa joojo maa joojo ubbi nañ ca tey lu day nii fas diggante baaraam déyam ak bi ju topp <coughs> moom la yaaram di wax tisee na boobu ko fasee ne ne lu day nii ubbeeku na ca maanaam léegi tey jege naa ubbeeku daal <coughs> seena bu ne ko ndax danañ xaraku te nit ñu baax ñu ne ci biir mu ne ko waaw bu bon gi bëree yàlla dana xaar ak ñëpp ku ne nag ñu dekkal ko ci xiinaam قول الله تعالى أتوا الله وأتوا رسوله وأولي الأمر منكم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن موسى الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع بعض هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع انتبهت في سريعة يلا وحنا جاء القرآن تبلن يلا te topp yonent bi te topp borom yi ndigal ci yéen ulul amri nag fóode yi nenañ mooy buuri jullit yi ñu ne moy borom xam-xam wi waye bu ne buuri jullit yi ñoo ulu lam ri itam ñoom mën nañoo doon ulu lam ci mboolem nit ñi waaye ñoom borom xam-xam yi ulu lam ci ñoom dañu war a ci ndigali borom xam-xam yi nit ñi itam seen bi sallallahu ma nga sama bour top nga moom buurab yonent nak moy uru lamri <clears throat> deug deug moy buru julit bo xamne mbolam julit ma daje tan ko li na ma ci mbolam julit ñi nak borom xam-xam rek suñ dajee fal buru julit ga buru yonent la ku mooy ndigalam mooy nga ndigalal yonent te ku ndigalal yonent mooy nga ndigalal yàlla ku ko topp itam yaa ngi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko ku topp yonent bi nag topp nga yàlla ndax yàlla ne ku ko topp topp ku topp yonent bi topp nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ñëpp ku ci nekk ab sàmm la te ku nekk danañ ko lay ak caawam buru jullit ab sàmm la danañ ko laaj ak càmmam <coughs> mboolem réewum xatte yëpp moom lañ koy laaj nit itam sàmmala ci këram danañ ko laaj ak càmmam jigéen sàmm la ci néeg jëkkëram te nañ ko laaj ak càmmam waa góor sàmm la ci alali baayam te nañ ko laaj moom itam ak caawam <clears throat> mu ne dëgg-dëgg daal yéen ñëpp sàmm ngeen te ku nekk danañ ko laaj ak caawam ku àttewut ku amul ci yooyu yëpp dara itam ñu la dénk sa cëri juróom-yaar sa ñaari loxo bu ca def lu la yàlla tere sa ñaari bët sa ñaari tànk sa gémmiñ ma sa biit sa pay <clears throat> juróom-ñaari cër yooyu moom ko amul njaboot koy sàmm itam doy na laa sàmm te daañ la laaj ñoom itam seen ak caaw lañ leen di lii ci Quraysh lañuy génn <coughs> feek ñu ngi taxawal diina ñoo war a nekk bu du jullit <coughs> Muawiya te déggoon na kuy nettali ne buuru jullit dana génn ci xaxtaan mu mer dal di yëkkee mimbar ba ne ay nit danañuy wax wax yoo xam ne ñëwut ci alquran ñëwut ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu dañoo réer mbir mi yonent bi na ne du génn mukk ci Quraysh ba ba àdduna tukki Quraysh ñooñu nekk njiiti jullit yi waaye fekk itam ñu taxawal diina ne <coughs> fekk ñaar ci ñoom a ngi dund ñooy àtte ñooy àtte diina ji ñooy àtte ñooy nekk buuru jullit daal buuri leneen nag mën naa am buur yu àddina yi mattante loolu mën naa am bu nekk ci tubaab bi sax waaye buuru jullit tigi tigi daal fokk mu am askan bu jokku ci Quraysh lu war la lépp lu mu la ca mooy ku ne dégg ko te topp ko yonent na topp leen seen buur kuñ fal ci yéen bu di lay jaam wa xabas la sax bo xamne ne mu nga melni ni benn reseñ bu wow ci ñuul booy du tere rek bu do doyee buuru julit topp ko war na mu ne <coughs> bo gisee sa buur nag muy àtte loo xam ne jubuwut la booyet bu mu tax nga beru ko top ci rek ndax boo ko beroo génn mbooloo ma te ku génn mbooloo boo dee dee nga ci jaahiliya maanaam dee nga ci kéefar na nga ko topp te te muñ rek <coughs> ñu ne yonent bi dañuy am ay buur yoo xam ne seen xàq yi dañu koy teg te ñun suñu yàq ñu dañu ko xañ mu ne muñ leen yéen gisu leen sax loolu ñi ñi mujj ñëw ñooy gis loolu waaye nag ku ko ci gis itam na muñ rek te toppee te

ak topp ko bu buuru jullit diglee toppal lam la digal bu la neexee ak bu la naqadee te duud mooy yàlla nag bu diglee mooy yàlla nag mbindeef duñ ko topp mukk ci loo xam ne mooy borom bi la yàlla gën a xëy ci ñëpp bu diglee mooy yàlla nag kooku ko gën topp <coughs> Sidina Omar ba mu faloo soo taxaw ci mimbar bi ne sant naa yàlla mi ma teg ci seen kaw leen ñëpp léegi maa leen di laaj ndax lu ma leen digal da ngeen ko def lu ma leen tere ngeen bàyyi ko saaba ya tontu ko ne ku yaa ngi digle lu ànd ak topp yàlla di tere mooy yàlla ñu di la topp mu ne bés bu ma leen digalee lu wuuteeg yàlla digle nag ak yonent bi mu ne ko bu keroogee nga xam bu keroogee ñu jubbanti la ak suñuy jaas yi mu ne sant naa yàlla du ma fal ci biir nit ñoo xam ne su ma moyee ñu jubbantuma seen jaasi ay bilan saar yeneen daf ko faloon ci njàngal boole ko kii nit ci saaba yi ne leen topp leen ko nag lu mu digal na ngeen ko def lu mu tere na ngeen ko bàyyi ñu dem ba ca yoon yenn bés nag mu mer yonent bi dafa waxoon ne lépp lu ma leen digal ngeen topp ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko ñu ne waaw mu ne dem leen taxani ñu dem taxani indi jër mu ne taal leen ko ñu taal ko ba mu nekk safara mu ne dugg leen ci ñu taxawaaru déng déng benn waaye ne ko duñ ci dugg ñu ne yonent bi sax mucc ci safara taxoon ñu di ko topp waaye dugg safara taxutoon ñu di ko ñu di ko topp rànk nañ bañ wàññeekoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko mooy leen jubal ngeen moom moo juum waaye su ngeen ca duggoon dootu leen génn safara mukk laa dina mbindeef duñ ko topp lu mooy ci lu neex yàlla ak pal laaj ko gënul yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam bul laaj ak pal ndax <coughs> ah, ak pal suñ la ko joxee te fekk laajuloo ko yàlla la ciy dimbale soo ko laajee nag bañ jox la ko yàlla daf la koy wàkkil balaa sa bopp ba xam mun nga dara am déet te jaam bi mumul dara kon nag bu kenn laaj ak pal naa muñ buñ joxe buñ ko joxee ak pal yàlla dimbale ko ca buñ ko joxut ak pal mu gërëm la yàlla àtte ci moom waaye daal bu daan laaj pal dangaa giñ gannaaw nga gis ne li <coughs> géñ ne doo ko def def ko moo gën bon na ko def te kaafara sa ngéñ <coughs> waaye bu ne xasoon naa géñ rek bu bàyyi def lu baax na nga sa ngéñ te def la nga xam ne tey moo gën a baax itam réccu rek nga jëjëlé pencëm yalla na xamut kenn ko xam ne nga falu ci ko ñaari nit rek lu may pencëm yalla booy ñëw dañ lay joñ sax maandu rek mo lay tek ci ñëñ la wala mu yobu la sa wala nga ñàkk maandu noonu ngay demee safara mu ne waxuma sax mbugalam àlaxira ma waaye bu lay nampal moo moo baax moo baax ci ndey juy nampal moom nguur waaye moo bone ci ndey juy feral bés bu la feralee daal feral nga xam ne moo lees عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومي فقال احد الرجلين امرنا يا رسول الله وقال الاخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه ñaari nit dañu ñuy fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saaba yi ñoo ko yonent yaa ngi fal nit ñi fal ñu kenn kay wax ko ma leen man sama mbir mi képp ku koy laaj bu ma ko ko jox ku ci xiritam du ma ko jox maa ngi koy jox rek ñi nga xam ne dañ koo dëddu waaye ku ko laaj duñ la ko jox baabu man istagara an yatar falam yansa qaala xaddatana abu nuaymin qaala xaddatana abul ashabi an ilasani ana ubaydillahi ibn ziyadin aada maaqil ibna yasarin fi maradihi allazi maata fihi fa qaala lahu maaqilun inni muhaddisuka xadiisan سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اشترى الله رعية فلم فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم من ne كان وقامنا koo xam ne nañ ko falak fal <clears throat> mu xilif nit jublu mooy du fóon mukk ba nu aljana buur bu maanduwut ñum xelif du du mukk ba nu aljana ba nu aljana bu ko jubee juróom doxab juróom téeméeri mu xeeñ la maanaam lu jege aljana lu mat doxab juróom téeméeri at qaala xaddasanaa isaaq ibnu mansuurin qaala axbaranaa usayn al-jufi قال زائدة ذكروا عن الشام عن الحسن قال أعطينا ماقل بن يسار نعوده فدخل عبيد الله فقال له ماقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت mu <coughs> yàlla dana ko soril safara yàlla dana ko soril aljana te yàlla dana ko dugal safara باب من شاق شق الله عليه قال حدثنا إسحاق الواسط قال حدثنا خالد عن الجرير عن طريف عن طريف أبي تميمة قال شيت السفان وجندبا وأصابه وهم يوسيهم فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعت يقول من سمى سمى الله به يوم القيامة قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة فقالوا أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن, ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملك كفه من دم أهراقه فليفعل قلت لأبي عبد الله man yaqulu sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jundabun qaala naam jundabun xadis ji day wax na koo xam ne da ngay ndéggatu yàlla dina la dégg déggale bi ñëpp dégg la waaye loolu ay sag pay ci àllaaxira koo xam ne itam dangay di ay nit ڈیم کو نہ کو یہ پو سفر پینکم ویلا جنا کی جنٹ ہمکن پہننے من والے shaq alayhim allahuma usquq alayhim ci suba sa mu ne ma nerewuma bi na xaadis jooju yeneen du fa nekk képp koo xam ne yëlif nga la lëf ci sama xeet te tiisal leen yow yàlla yàlla nga tiis ci moom mu ne ma nerewuma bi naa sa addis jooju addis ji wet na ma ne ko ji wet na lool mu ne ma nerewuma bi naa moom waaye ko loolu bari nag باب القضاء والفدية في الطريق وقضى يحيى ابن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما انا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا فلقينا رجل عند السد عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعدت لها فكأن الرجل است استكان ثم قال يا رسول الله ما أعدت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت قلت حتى ci <clears throat> حتى xatte ci kaw حتى rek ñu laaj la xatte ci kaw yonent génn na ci jàkka ja ànd benn waay ji saaba yi bu génn buntu jàkka ja rek benn waay dogandu ko ne ko kañ la péncam yàlla mu ne ko loo ko xadoo waay ji daal di nooy jaaxle lool ba mu yàgg mu ne ko dencalu ma ko julli yu bari wala koor yu bari de waaye daal bëgg naa yàlla ak ab yonentam mu ko yaa ngi ñu nga bëgg yéene ànd <coughs> باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا الشعبة قال حدثنا ثابت البناني كان عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك خل من مصيبتي قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قالت ما عرفته قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت إلى بابه فلم تجر عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة <coughs> benn jigéen dafa amoon niiwoom taxaw ca bameel ba di jooy di da di jooy yonent romb ko ne ko muñal te sàkku yoolab yàlla mu ne ko sori ma li ma dal daf laa dalut <coughs> musiba mi ma dal yow wéet nga ci amuloo ko moo tax nga di ma wax muñal yonent daal di wéy rek sallallahu alayhi ba yonentu yooyu rek gaañ agsi ne ko yonentu jaar na ci yow léegi lu mu la wax ah mu ne ko wax na ma ne muñal de waaye man xaw moo ne yonentu bi la te wax naa ko lii wax naa ko daal daw di daw dikkal si yonentu ci néegam fekk buntu ba fekkut fa kenn kuy garde mu daal dugg ne yonentu bi sallallahu alayhi wa man bi ma lay wax li ma lay wax kat dama la xamutoon waaye léegi muñ naa yeneen ne ko muñ wee na ñoo ngi ca saddin bu njëkk ba wala musiba ma dale wees booba la muñ waaye jooy ba mu neex la nga yàqaa dina ba noppi soog a ne muñ naa loolu du muñ yàlla du ko nangu باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه قال حدثنا محمد بن خالد بن الزهري قال حدثنا الأنصاري محمد قال حدثنا أبي عن تمامة عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرة من الأمير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتباعه بمعاذ قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم buntëb <coughs> وقمنا koo xam ne yoon rey na ko يعني انت قصدان انسان ابوك ابو قيس مو ابو موسى الرشاري نعم بان واحد تفلين رمو ومن رمو ينا كيكت دفا جبل وان وانا بقنا ابو موسى ليك يهور من جدين يهور ليك من تحول Yeah. <clears throat> du ma def dara lu may ba daraa dem rek rey soo ko ñëw toog te tàgguwul yonent bi sallallahu alayhi xam ne ku yoon rey moom ku ko rey itam ilimaan ji dina ci wax dara baabun yaqtil haakim aw yafti wa ghadbaanun qaala haddasanaa aadamu qaala haddasanaa shu'batu qaala haddasanaa abdulmalik ibn umayrin sami'tu abdurahmaan ibn abi bakrata قال كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بالسجستان بأن لا تقضي بأن لا تقضي بين اثنتين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن حكم بين اثنين وهو غضبان مر دوحته ñu dañ ko foloon te bàyyam bàyyam di ko dénk naa ko lu yàgg-yàgg bu la diggante ñaar te fekk yaa ngi mer dégg naa ci yonente sallallahu alayhi mu ne aji àtte war da àtte fekk mi ngi mer mun naa mer ma jeexital ci moom dara mu jàngal àtte boobu qaala xaddasanaa Muhammad ibnu Muqaatilin qaala axbaranaa Abdullahi قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في معوزة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم النفرين فأيكما صلى بناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف يرنتك صلى الله عليه وسلم وعيدي كنا في موم نكو من دي جلق سوبر عرض موكي فكي تحسيني ريوان جدال لكو قدر قدر قدر قدر بي ما نمو من مفرد جلق سوانيك من مسلمان جزيان انتو مرتواده ni bésab keroog mu dal di réew mbar ba ne am na ci yéen ñoo xam ne dañuy dawloo nit ñi diina <coughs> Muaz ibnu Jabal la woon dafa julli ak saaru baqara yonente sallallahu alayhi wa ko ndax nattukat nga bëgg doon ndax nga bëgg a nattu nit ñi ci seen diine ñu génn lisi ñu génn diine ji ku ci jiite ay nit na woyofal ah, nu tax ngay jàng saaru baqara lu te rek nga jàng ci saaru soor yi <clears throat> boo jiitee mbooloo ku feebar a nga ca ku màggat a nga ca kuy nampal nga ca ku am xaajoom yàkkamti ca dem nga ca koo nag ku jiite na woyofal woyofal googu nag mu santaane lu jaageen topp bànneexab maamam ya ci nis bii la gis nga kii bàqara la defoon ñu sant ko woyofal bañ a ci bàqara te dawuta julli ci saar yu guddi waaye <clears throat> woyofal gi ci def lu neex maamoom ya ba woyofal julli ga qaala xaddatanaa muhammad ibnu abi yaquba alkirmaaniyu qaala xaddatanaa hassan ibnu ibrahim qaala xaddatanaa yunusu قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهو وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيد فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. عبد الله عمر بن الخطاب جس میں گھر بریک kenn باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخ إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمر مشهور قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنه عنها قالت جاء هند بنت عتبة ابن ربيعة فقال يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أرض آه، أهل خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل خبائك وما أصل يا sa ñooñ waaye léegi fii ma ne kër gu ma bëgg ñu tedd féete kaw bu mel ni sa kër gi amu moo sañu ni tey yaay féete ko ñëpp yaag ñu nga ànd <clears throat> noo ko def ne ko waaye nag maa ngi tawatal lenn Abu Sufyaan sama jëkkër dafa nay lool ab jàppkat la li may jox ci dund du doy te dañoo am njaboot ndax mën naa bu demee may jël ci mu jël ci xasaanaam dund yu ko gone yi suur yonent ne ko waaw ne ko def ko te na nga yem ci loo xam ne daal duñu xam ne daal bul jéggi dayoo gis nga yonent xowut Abu Sufyaan ne ko ndax li kii wax dëgg la ndax boobu Abu Sufyaan siwee na loolu ba yonent sax xam na ko biñ koy tawatat moo tax bi tawatkat bi tawatee rek mu la derte baabu shahaadati alal xatti al maxtuumi وما يجوز من ذلك وما يبدو قال عرف الكتاب والخاتمة وكان الشعب يجوز الكتاب المختومة بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بردة الأسلمي وعامر بن عبد بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل له إذا فالتمس المخرج من ذلك ñu teg xaaba yi di bind moromu xaaba yi xaaba yi mën naa sukkandiku ci xàtte boo xam ne xaabee ko xàtte keneen bind ko tàmpe ko bu ko bindee tàmpe ko suñ xam ñaatiram tàmpe ba di tàmpe bu wóor boo xaaba ji mën naa sukkandiku jëlee moromam ma xàtte nga bind ko ko <clears throat> naka noonu te féete ko xaadu itam mën naa bind xaadu ci ci suufam ne ko ate sàngam nangam la nangam la nangam la signé ko tampe ko jox ko su fekkee du mbind mu ñu xam nag wala amu tampe donc kenn du ko sukkandiku dañu wut ren ay seede ko àtte ba taxaw rek nga soog ko àtte waaye su fekkee ne mbind mu mu njëkkoon a wax la xam ne tampe nañ ko xaab li gi signé na ko kooku soxlawut nag seede mën na ko wéyal rek na ko ko xaab jaate woon wa awwalu man saala ala kitab wa qaadi al bayyinata ibn abi layla wa sawaar ibn abdullah wa qaala na abu naamin qaala adana ubaydullah ibn murzin jiitu bi kitaabin min musa ibn anasin أصحاب البصرة وأقمت رأى البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به والقاسم بن عبد الرحمن فأجازه على سن وأبو قلابة أن يشهد على وصية ما يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تبدوا صاحبكم وإما أن توزنوا بحرب وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء سطر إن عرفتها فسب وإلا فلا تسب yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di cosaan ci loolu yëpp xaab yi bind gëne ci xaab yi ak xaab yi si gën bind leen beneen xaab yi jiblag yonent ba mu bindoon nañ xeewar parce que dañ faa rey ku ñu rey mu bind leen ne leen fokk ngeen joxe dee kooku ñu roy benn ngeen joxe dee kooku ñu roy nangu leen ko rek na ngeen xam ne ndekk laa la ngeen moom xare kon dinaa xare ak yéen ñu ñu joxe ñu joxe dee jo mucc ci xare bu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قبادة عن انس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كان ينظر إلى وبيسه والنقص والنقص محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم എന്തൊക്കെ ബിന്ദു ഭൂരിക്കുവാറി gannaaw bu mu xaree ba xam ne jaziratul arab ñoom ñëpp dugg nañ ci lislaam buur yaa dina yi daf leen doon bindi leetar bi leen woo ci lislaam ba mu bëggee bind buuru tubaab buuru tubaab yi nag mu ko ñoom duñ nangu leetar lu may tàmpane ca boole ci moom nga tàmp ko keneen si daal di tëdd ab jaaro

dama rot ci teen ba ci biiru aris ba mu jaaru ba rote ci biiru aris nag la fitna daal di tàmbali ci joxaat yi ndekete yooyu si lu gën a woon ci jaaru Suleymaan la moo moo ne woon ci jaaru booba yooyu moo tax moo tëye woon nguuru jullit bi bay nit ñu xàpp ci Osmaan ba Osmaan ñàkkee jaaru ba rek booba la nit ñi murtat ci loxoom mel ni ca kaw kaw ja باب متى يستوجب رجل القضاء وقال وحسن أخذ الله على الحكام أن لا يبدو الهوى ولا يخطب الناس ولا تشتروا بآيات ثمن قليلا ثم قرأ يا داود إن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى والنور يعقل بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استوجزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقرأ وداود وسليمان إذا حكما في العرض إذ نفشت في غنم القوم وكنا عليكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين فحمد فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا بالتعريف وقال مزار بن الزبار قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أحصى القاضي منه خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فيها حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. war na ci kuy mu lam xam mu dëgg te itam mu jàng <coughs> ndax yàlla na bu leen jaay kawtee fa ñu niki àttee alxuraan yi jëndee ko njëggu néew na nga waroon a àtte muy dëgg nga bàyyi ko àtte leneen pour am ca dara mooy jaay kawtee fi yàlla yi jëndee ko njëg koo xam ne gu tuuti la <coughs> alxuraan nettali na Daawuda alxuraan am koy wax naa ko yow Daawuda def naa da ngay xalifa ci suuf ma nga diggante nit ñi ci dëgg te bul topp baneex ñi xam ne dañoo réer bañ a sama yoon buggal mu tat dina wàcc ci ñoom ndax liñ fàtte suñ jëm yàlla nekk lii ne Daawuda Suleymaan doon nañu àtte ci soloy gàtt yoo xam ne dañoo ñaay ko rek benn baykat ba ñu xattee yàlla déggul waate ba Suleymaan yàlla ñimu nett lay seen mbir tagg na Suleymaan ci àtteem jub waaye wedd judam Daawuda ki nga xam ne juum na waaye dafa fatu saabatu nag ziyaadis bi ne mu taxatu nag ëftisa boobu mu defe na xoof yi yëpp xaalaku nañ ndax di yàlla gëdëmee Suleymaan ne moo xam moo àtte dëgg yeddu gisam Daawuda ndax fadu na mu bi soo xam ne topp ba ne xam xanaa fadu na bu juumee loolu ko lool koo xam ne dafa fadu daal bu fadoom jubee dana am ñaari yool yoolu fadu ak yoolu jub boo xam ne fadu na juum dana am yool rek mooy yoolu fadu la waaye loolu yëpp mooy fadu de waaye du yàggan yanoog yoon ngi jàdd jëm nale ngir leneen loo ci kooku moom borom mën nga mucc mukk باب رزق الحكام والعاملين عليها وكان شريع القاضي ياخذ على القاضي على القضاء اجرا وقال وقالت عائشه ياكل الوصي بقدر مالته واكل ابو بكر وعمر قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعب عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن يزيد ابن اخت نمر انه يتبع ابن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن سعد اخبره انه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر أن لم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت الأعمال كرهتها فقلت بلى يا فقال عمر ما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبع نفسك <clears throat> kenn ci buuri Seydina Omar yi daf daa def bu ko joxee alal mu bañ ne du ko jël ñu wax ko Seydina Omar mu ko ne ko dama dégg ne yaa ngi amee yaa ngi liggéey nit ñi te suñ la joxee sa wàll ci baytimaal <clears throat> nga bañ ko <clears throat> mu ne ko man am naa lu ma doy am naa ay jaam yu góor ak yu jigéen mën naa caa dund li may liggéeyal nit ñi nag ma def ko ngir yàlla rek bañ ci wut gën pay Omar na ko bu ko defati liñ la jox na ko jël man mii defoon naa li nga lu mel ne li nga def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa mu jox ma ma ne ko joxal ku ma gën a ñàkk man am naa mu ne jëlal nga xoom xoomloo ko wala nga sadaxe ko waaye <clears throat> luñ la jox te fekk yow laajuloo ko loola jël ko ñu ngi bañ laaj nit ñi waaye loo xam ne dikk na la ci dul laaj <clears throat> loola na nga ko jël. قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة فقلت أعطي من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذوا ما لا وما لا فلا تتبع نفسك باب من قضى ولعن في المسجد ولعن عمر وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الشيخ والشعبي ويحيى بن عمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن والزرارة بن عوف يقضيان في الو... في الرحبة خارجا من المسجد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزوري عن سالم بن سعد قال شهدت المتلعينين وأنا ابن خمسة عشرة فرقة فرقت بينهما ci biir jàkka ak rëbboo ci biir jàkka Marwan rëbboo na ci biir jàkka ja ci kaw mimbar ba Abdoulaye ibn Omar fa daa génn ba ca jàkka ja buy mu àtte foofa waaye daawul àtte ci biir jàkka ja mu ne bi ne tali hadis ci ne man ne fàttaliku naa may doomi fukki at ak juróom ma fekkee ñuy rëbboo ci jàkka ja bu ñu rëbboowee waagal ñu teqale seen diggante loolu àtte rëbboo ñaar bu ñu rëbboowee gannaaw ga dañ leen di teqale te dootuñu ànd mukk xaraam ak dëppet la qaala xaddasana yaxya qaala xaddasana abdurazaqi قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن الشهاب عن سالم أخي بن سعيد أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد benn waay bu bokk ci lansaar balaay ji wàccee ne ñi nga xam ne dañuy jiñ njaaloo <coughs> nañ leen gëtël te nañ leen nañ leen gëtël te yàlla jàpp na leen ñuy fasiq ku xas góor gëtël war na ca te fasiq nga itam dootuñ nangu sa seede ji lislaam dara nga xam ne da nga am ñenanti seede yoo xam ne ñoo ko gisandoo loolu mënul nekk <coughs> benn waaye ci lansaar jóg na yonent waaw ku fekk góor ji sa kaw jabar da dem di wuti ñeenti seede balaa nga ko am bay dellu si fekk waa ja faj soxla waa ja na soxlaam ba dem yoonam <coughs> te su fekkee noppi nga ko itam nga noppi rek xol bi xotteeku loolu ci mbir yonent ne ko ñeenti <coughs> ñeenti seede rek mu dem këram fekk waaye nga tëdd ci kaw jabaram mu daal di dér si ne yonent li ma doon wax loolu ci mbir si ne ko ñeent ñeent seede rek mu dem këram fekk waaye nga tëdd ci kaw jabaram mu daal di dér si ne yonent li ma doon wax yàlla gaaw na ma ko na toolool fekk naa jenn waaye ak sama jabar yéen foo ndaw sa ndaw sa miin mais déedéet sama jëkkër dafa fiir rek te gisoon ñu toog ci jataayu waajo jë nga fa waaji di ma xool bu baax lool rek moo ko tax a ñaam jot waaye li mu wax dara amu laay ji daal di wàcc <coughs> ne dañuy rëbboo nguur gi dafay taxaw géeñ yonent ngéeñ <coughs> mais gis na ko muy njaaloo mottalee rëbbam yàlla dem li mu wax du dëgg ndaw si loolu liy tere ñu gëten ko moom mu géñ yonent ngéeñ mais jëkkat ji waxul dëgg mottalee juróomeel mais yàlla na ko yàlla buggal su fekkee jëkkat ji wax na dëgg yonent daal leen xool taxawloo leen di leen rëbboo leen <coughs> góor gi daal di génn ñenanti géñam mottalee am rëbb ndaw sa rek ñu woo ko bëgg a dellu gannaaw ay mbokkam ne ko bu ñu teg gàcce dama rek mu daal di ñëw moom itam géñ ñenanti géñ ne waa dafay fen juróom la noo mun ñaan bëgg mbugalam yàlla ci kawam ndem jëkkër ci wax na dëgg yonent na leen yàlla xam na ne kenn ci yéen waxul dëgg <coughs> wante <coughs> ndaw si biir bi mëmb su fekkee ni juddu na <coughs> te tànk yi rink dëng ba di xar géej kon ñu xam ne kañ ko jiiñ moom la su dikkee nag ci safaanam loolu jëkkëram xam ne moom mu jur doom ñu rëbboo yonent teqal leen ah, nañ tàggoo te dootu ñu ànd mukk ba mu wasine ba ñu indi doom ji yenente gis ko mu nitu farriñ xarwaloor yenente ne su tax su téere yàlla bi àtte na ko noppi kon ne ndaw si naa ko digaale moom daf doon naax lim doon géñ wax doon dëgg باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام وقال عمر أخرجاه من المسجد ويذكر عن علي أنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسي أربعا قال أبك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم <coughs> بن waay dafa ñëw ci صلى الله عليه وسلم. ne ko jaaroon naa na àtte ci man àtte dëkk sariyaatu yonent bi mooy ko mu ñëw dellu ko wax yonent bi mooy ko mu dem ci mu demati ci kanamam wax ko bu muy ñeenti yoon ba mu waxalee boppam loolu ñeenti yoon nag yonent ne ko ndax jinne jàpp mu ne déedéet mu ne ko defe naa da nga fóon rek wala da bomboo rek wala da lamb rek mu ne ko déedéet mu ne ko njaaloo nga ba sa de dem na ci loola leem mu ne ko waaw yonent ne gaa ñu yóbbu leen ko ca <clears throat> bitti ngeen jam koy doj ba mu dee ñu yóbbu ko ca julekaayu àll ba ñu koy doj ba mu dee baabu ma'wizatil imaam al-xusumi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بهجته من بعض فأقضينا وما أسمع فمن قضيت له بحق بحق أخيه شيئا فلا يأخذ فيه فإنما أقتله قطعة من النار yonent bi man damay àtt rek su ñaar yëwee di layo fi man mën naa am kenn dàq ca wax moromam ba ma defee ne moo am dëgg su ko defee ma àtteel ko ci kaw nu ma déggee waaye koo ci xam ne àtteel naa loo xam ne moom loo ko bul ko jàpp boo ko jëlee safara rek laa la jox maanaam da nga dem safara dem yonent lañ mën a def loolu nag saka xaad yi ci des tax na be xaad yi war naa wattandiku bu baax a baax a baax باب الشهادة تكون عند الحاكم في في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأميرة حتى أشهد لك وقال إكرمته قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر معي الزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر عن النبي ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم الرجم وقال الحاكم أربعا كشاد كسنا كالرد تقمنا رود كنم قاضي <coughs> seere si dañ koy taxawal ci kanam xaas yi xaas yi mën caa àtte <coughs> Muawiya laaj na benn xaad yi ne ko su fekkee ni yow ci sa bopp gis nga ñuy njaaroo ak sa bët yaay xaad yi yaay àtte <coughs> looy def mu ne ko ñeenti seede la yoon wax man benn laa rek soo amee ñett ñu ci mu sax soo amul ñett ñu ci tegu sama sedd si dara mu ne ko wax nga dëgg am na koo xam ne ñëw na fi yonentu sallallahu alayhi wa sallam maay ne ko njaaroo naa la waral ci mantéere yàlla ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gu mooyu ko lam defoon ku jëkk ko ba ñeenti yoon mu ne ko jinne la jàpp mu ne ko déedéet <coughs> waaye li ma wax mooy li am ni dem leen ngeen jam doj ba mu dee ñu dem jam koy doj ba mu dee <coughs> qaala xaddasanaa qutaybatu qaala xaddasanaa kasirin an abi muhammadin mawla abi qataadata أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين من له بينة على قتيل, على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه قال أبو بكر كلا لا يطيع صيبغة من قريش ويدعى أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأصلته قال لي عند الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيهدرهما إقراره وقال بعض أهل العراق وما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة معرفة وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن أن يمضي <laughs>